yaakaar naa li nga xam ne moom lañ taamu woon ba taxoon ñu tànn la ngir nga jàngatal ñu xasida gi ame nañ ci su njort xëy na sax as njàngat nga ko tuddee jàpp naa ne képp ko déglu dana xam ne jàngat bu yaatu la jàngat bu yaatu la ndax ci njëlbeen rek tënkal nga ñu li nga xam ne moo fi jotoon a jàll ci jàngat yi nga xam ne sëriñ Abo Kebe defoon na ko ak yi nga xam ne sëriñ Xaadim Silla defoon na ko muy taarix xasida gi ci boppam yan jamono la ko sëriñ bi way ak fan la ko waye ak lu taxoon mu way ko ginnaaw bi ñëw nga taxaw firi lenn ci abyaat yi nga xam ne yaa ngi ko tàmbalee ci tuubaali abdin muridin saadiqin lahumu bi xidmatin aw bi xubbin aw hadiyaati mel na ne andi nga lu bëree bëri ci lenn ci loo xamante ni sëriñ bi tudd na ko ci biir xasida gi muy melokaani sëriñ su baax soosu nga xam ne ñoom latu tuddoon lu jiitu muy wax bayit boobu kullun min al awmi kullun min al qawmi sayxun aalimun wariun waaye nga leeral lenn ci ay manaqib yoo xam ne am nañ ko muy ay ngëneel ak ay daraja te loolu lépp ni nga ko waxee rek ñi ngi ko amee ci xeeñtu saawoo yi nga xam ne ci la yonent bi alayhi salaatu salaam jaaroon ak saxaabaam naaluhu bi xafil rasulil mustafa rutaban kon day mel ne mbooleem martaba yiñ am rek xeeñtu jaar-jaar yonent bi alayhi salaam moo leen ko may ginnaaw bi nag tudd na seeni manaaxib yu baree bari muy xam-xam laataa ñuy soobu noonu tamit la ñëwee tudd seeni sajaaya muy seeni melokaan wa min sajaayahumu xawfun nifaaxi nifaaqi bada dangay ngay gisit bi loolu jàllee sëriñ bi indiwaat ay jikko yu baree bari ci seeni jikko ñoom gaa yu baax yooyu bi nga ñëwee tamit ba ci jeexantal bi wane nga ne sëriñ bi julli ci yonte bi alayhi salaatu salaam du ko ñor la te loolu mooy li am ndax boo xoolee da ngay gis ni nga xam ne noonu la ko baamtoo ay yoon yoon yoon te saa buy julli ci yonte bi alayhi salaatu salaam mi ngi tuddaale turu suñu borom yaani mi ngi julli ci yonte bi alayhi salaatu salaam di ko ñaanal ak i saxaabaam waaye di tuddaale turu yàlla borom subhanahu wa taala kon ni nga ko leerlee rek euh, leer na li ci soxla woon daanaka am nañ ko ci xëy na nag bi nga jàngate jàngat bu gaaw andi nga tamit lenn ci secret yi nga xam ne moo nekk ci xasida gi ci wàllum balaaxa day mel ne tudd nga ci ginaas mu fees ci lool tudd nga ci muqaabala tudd nga ci tibaaq tudd nga ci euh, li nga xam ne mooy at-tasbih at-tamthili day mel ne ñeent la yoo xamante ni fees na ci biir xasida gi bi loolu jàlleen nga ñëw andil ñu al bondu mooy ci wàllum ruu baat yi sëriñ bi di jëfandikoo ak tamit xeetu jooy yi nga xam ne moom lay jooy nga taxaw ci taxaw gu am solo daal di ñëw nag tëje ko ci moom sëriñ bi ci boppam ni nga xamee noonu la doon dundee li ne ci biir xasida gi ak ñaa xam ne ñoom la ko suñu borom subhanahu wa taala loon day mel ne loolu bi nga ko indee ba pare nga indiwaat xasida ak alqaadi ka la mu gën a doon firnde ci li nga xam ne moom nga doon indi mooy mu ràbbaw na doon xasida gu am solo goo xam ne da ko jëme woon ci tàgg mag ñi àndoon ak sëriñ bi ci liggéey boobu ñu ko liggéeyaloon ak bayit yi sëriñ Mbàkke bu sa yooyu euh, nga ci tegit kon daal ñu ngi lay sant bu baax a baax di ñaan yàlla borom bi subhanahu wa taala gën laa sàmm gën la aar gën laa dëgëral ba liggéey bi nga xam ne moom ngay liggéey mooy tasaare xam-xam suñ borom may la nga daje ci ak ni nga xam ne noonu nga ko bëggee ñu gis ziyaare bu baax suñu waajur sëriñ Moustapha Jatara teew na ci jataay bi moom ñuy koy ñaanal rek liñ ñaanal sëriñ Abibu xam naa kon dañuy yox sëriñ Galas mu def ci ay commentaire bala ñoo yëkkati jataay bi bismillah bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin wa molana muhammadin wa ala wa ashaabihi tayyibin tahirin mbokk yi ñu ngi di nuyu bu baax Euh, di bëgg ci jotaay yi nga xam ni mi ngi fasu fii ci daaray Kamil euh, tàmbalee ci bisub Ramadan bi njëkk <coughs> ba ci bi mujj euh, muy jotaay yoo xam ni jotaay xam-xam la jotaay njariñ la ñu agsi ci ñaar fukki fan ak juróom benn tey mu mel ni ñu àggoon ci di jàngat uqal bukaawu ba ci xaaj mujj bi sëriñ xabibu jatara doon ko jàngat jàngat moo xam ni man ci sama dégginu bopp daanaka li ci war a feeñ lépp feeñ na jàngat bi am na commentaire bi sax am na euh, sëriñ Mbàkke Jóob ñu ngi lay nuyu bu baax Euh, ni nga ko waxee léegi rek ñu ngi nuyu suñu kilifa gi di sëriñ am di te di ko ndokkeel lool ci jotaay yi nga xam ne moo ko iqaama fii te lépp dara génn ci lu may liggéeyal sëriñ Touba ndax sëriñ Touba ku ko liggéeyal ci xam-xam wàcc nga ndax moom xam-xam rek moo ko ñoroon ndax li mu doon liggéeyal yàlla lépp li ci nit ñi mën a jariñoo ci xam-xam lañ leen ko jaarale ngir ñu mën ko mën caa jariñoo taalifal leen ay téere yoo xamante ni bii daanaka boo àggutoon ci téere yu mag yi dana doy sëkk ngir jaam bi ngir jullit bi man cee xamee li nga xam ne moom la war a jëfe ci diggam ak boroomam mu mel ni gi nga xam ne moom la sëriñ Habibu doon àggale tey te àggale ko ci melokaan woo xam ne waxtaan la woo xam ne dafa war a nekk waxtaan wu sax wuñ war di déglu saa su ne ndax saa su ne ku ko déglu da ci jàngat lu bare bare bare bari man nag jàngat bu njëkk bi ma ci def ci bayit bu njëkk bi nga xam ne ci la tàmbalee muy tuubaali abdin muridin saadiqin lahumu bi xidmatin aw bi hubbin aw hadiyaati sëriñ bi laata muy wax bayit woowu dafa wax melokaanu gaañ yi mu mel ni daal bu fekkoon toon ne ñu ñuy examen lañ dañoo dem ba gañe ban bokk ci minal mutafawwixiin yi yi ci gën a mage sëriñ bi doo ko wax nag daal ne ñii day bëgg naa ku leen topp ndax ku leen topp lii nga ciy jëlee kon dafay mel ni boo jàngatee melokaan yi nga xam ne moom la sëñ bi wax ba noppi doo ko tàbbi ci lii melokaan yu melokaan yu jafe-jafe la melokaan yoo loo xam ne nit ku ko ku ko dund ba dem ñu war laa topp lenn lu dul yàlla nekkatul ci yow dem nga ba jeex ci yàlla lool doo ko am baat bi mu wax na nag mooy ñeel jullit bi bi jaamu yàlla ba pare nag saxal ak iraadaam ba mu dëgër ba pare dëgëral ko dëggal ko mu dëggalee ko ci ñetti melo yi benn mu sopp leen wala benn mu mu leen di liggéeyal wala benn mu sopp leen wala benn mu leen di jox ay xadaaya ngir yàlla addiye moom iza naajaytumu rasula fa xaddimu bayna yaday najweekum sadaqa saalika xayrun lakum wa athar fa in lam tajidu fa inna allaha xafurun rahim kon loolu am na cëslaay lu wér ne yàlla moo ko digle woon ci diggante yonent bi ak ñooñu ma àndaloon muy sahabatu rasul kon loolu am na cëslaay cofeelit am na cëslaay in kuntum tuhibbuuna allaha fattabiuni yuhbibkumullah su ngeen bëggee yàlla topp leen ma bu ngeen ko topp bu ngeen ma toppee dangeen bëgg yàlla bëgg ka ca war mu mel ni bi bi yàlla dogalee sëriñ bi di jógee daaru salaam di ñëw tuubaa bëggoon ñim àndal am ak texe mën a sori nit ñi mën a mën a beru mën a ànd ci lim leen di diggal te duñ gis lenn lu ko gàllankoor moo taxoon mu ñëw ba fii bi mu ñëwee fii it nit ñi def njooxee nar ko fee fekk si mu ne sëñ Mbàkke bu kaa ñu waxtaan mun ne mu ne ko damaa bëgg ñu waxtaan waaye li may bëgg a def moom yow laa ciy waxal waaye duma ci wax ak keneen ndax lu ma dogu la damay jàll te jàll gi may jàll ñii ma àndal bëgg leen yóbbu ci yàlla te mu mel ni fii ñi ngi tàmbalee gàllankooru waxuma sax ñoom seen jaxasoo ñoom ñi ñi ñi ñi ci féete ci liggéey bi ak ñi féete ci njàng mi jaxasoo gi ñuy jaxasoo rek neexuma waxuma laa nag ñeneen ñuy ñëw te liggéeyu ñu jànguñu bëgg a jaxasoo ñoom kon faaw ñu jàll kon mel na ni Tuubaa gii rek dañ koy firee dëkkam bii nga xamante ne bii ba mu koy sanc ngir jaamu yàlla ngir sàkku xam-xam ngir jëm ci yàlla moo taxoon mu sanc ko kon mel na ni dangay am iraada gu dëggu ci ñoom kon sëriñ bi bala nga koo mën a topp dangay am pas-pas volonté ne kii daal gis naa ne ku jëm ci yàlla te àgg na ci yàlla te mën na caa yóbbu nga am volonté ànd ak moom muy kóllëre goo xam ne dootul dagg mukk xam nga sëriñ bi bu jëlee baatab waylun di ko jëfandikoo ci loolu waylun li man anni tawalla mudbira bandal iradati wa anni sabara daal ne tuskare ñeel na ki nga xam ne sukk na ci sama kanam ne ma yàlla mii nga bëgg yóbbu nit ñi ci laa bëgg a dem te bëgg naa ko ànd ak yow ba ma nangul ko ko mu won ma ginnaaw yàlla nee na kookee toskare ñeel na ko ndax fekk na loo xam ne moo doonoon terminus ci moom mu bàyyi ko fi di wuti leneen te àggoon na ci àgguwaay ba kon kon kon loolu jàngate naa ko ci dëggal gi nag boo xasee volonté loolu ngay dëggal ngir mu dëggu ba sëriñ bi xam na dëggu na lay xew sa digganteek moom ci yàlla àggale ga mën a nekk ci moom ndax dana ko man boobaa ndax dëggu nga ndax li ñuy wax naan yërmande yàlla deesul ne tugg rek ba fekk si la yërmande yàlla lu ñuy wut la wax nañ ne sëriñ Abiyu Mbàkke mi al imam mas na ko tontu nit yàlla nañu yàlla defal yërmande mu ne ko ah waaw dëgg la de waaye yërmande lu ñuy wut la de wa rahmati wasi'at kulla waaye fa sa aktubuha lillazina yattaquuna wa yutuuna zakat wallazina hum bi ayatina yuminuun léegi da ngay gis ku taxaw rek ni yàlla ne yàlla daal yërmande bi yaatu na waaye ba mu yaatoo dane dana ko dogalal kan ki ma ragal tey joxe asaka loolu moo yóbbaale ahkaam yëpp loolu moo yóbbaale arkaan yëpp ñi nga xam ne dañoo gëm lépp lu ma wàcc na la allazina yattabi'una rasula annabiyya lummiya allazi yajidunahu maktooban indahum fi tawrati wal injil loolu sax moo wane waat ni yonent bi wan ko ginnaaw mënul nekk ci kenn ndax nee na képp ku fi ma sa yor ab téere sax fekk nga ñu bind ko fàng dang wane ni kii moom la ñu war a topp dëggal gi moom la yàlla di cité ku ko xas def ñaaray mën a am nga respecté ko wéy mënoo koo respecté dama la fi jëlee ndax moom yow rek laa bëgg a fay fi ne suñu borom wax na ne ku dul kuy dëggal bëgg guma laa fay boo boo ci nekkee rek ci li nga war a nekk àgg àggagoo ci martaba boobu coobare yàlla mën naa wàcc sa kaw waaye ñii nag moom am na lu ma namm ci ñoom ba tax mu ne minal mu'miniina rijaalun sadaqu maa ahadullah alayhi fa minhum man xadaa nahbahu wa minhum man yantasir wa ma baddaloo tabdilan li yajzi allahu saadiqiina bi sidqiin dal ne am na ci jullit ñi kon loolu boo ko dee gis ak kuréel la cay doon ñoo xam ne biñ sukkee ci sama kanam man yàlla wóllëranteeg man ne ma danaa dëggal li nga li nga xam ne wóllërante nañ ko yow sunu borom nee na am na ci ñoo xam dañoo àgg ba àgg ci ay dayoo mënatuñoo dem ñu yem fa waaye foofu dama leen fay jële ngir la ma namoon ci ñoom duma ci dañ am ci ñoo xam nag yàlla may na leen kàttan ba tey ñu mën a xaar nekk ca loola di wéy nee na ndax ñooñee laa bëgg a fay moo tax kon boo xasee am iraada iraada gi nag ak njulliti koy jiitu ndax li am din la wax nga am iraada ba noppi nag boo ko amee nekk nag saadiq saadiq mooy li ma sukk kat waxante ko kii te yàlla man loo ko mu man maa jël yóbbu ma ca moom kon damay dëggal di topp ay ndigalam di bàyyi ay tereem ndax ay junjam ak yépp ci yàlla lay jóge kon loolu ñu dégge déggewaale ko ci ña naale naa ñaareel ba sëñ bi nee na ñoom de am nanu loo xam ne am na fu ñu ko jële ñu ne fu ñu ko jële mu ne mooy xeeñ ci yonent bi ndax yàlla waxoon bu yàggata la ma wax du ca dañ may yutihi rasula faqad ataa allah xencu gi ñuy xencu yonent bi te dëppuñu moom lañ wax ne danañ dem ba am ci rutab ay daraja yoo xam ne dana feeñ am ci yu feeñ yu mën a gis am ci yoo xam ne day nëbbu kenn du ko mën a gis ndax yàlla lim denc ci ay ngëneel daa bari te kenn xamul nu mu toll waaye nag lépp lépp mu ngi ko dëxëj rek ci topp yonent bi alayhi salaatu salaam mu daal di wax it ni waman tawalla fa ma arsalnaaka alayhim xafisa ma lay xamal ne man daal man yàlla li ma li ci sama solo moo yow laa jël jiital la képp koo xam ne topp na la xëyrun ku la toppul yow nga xam ne amutal lenn lu ngeen séq ñoom ñooñee nag bañ xamee loola di xenc yonent bi dëppuñu ngëneel yooyu nga xam ne wax nga nu ko moo wax ne bokk na ci am xam-xamu sariya yàlla rëddu aw yoon yoon wi nag bala ñu ciy limaale dangay taxaw ne man yàlla jox naa la sama bopp boo joxee yàlla sa bopp ba noppi mu tudd mu tudd nag la ne ah am na yoon bu ma teg woo xam ne kat boo ma joxee sa bopp sa bopp bi bala mu koo jël ci yoon woowu ngay jaar ba agsi ci man sëriñ bi ne ngëneel yooyee lan la mooy fexe ba xam yoon woowu nan nga ciy jaaree ba àgg ci te loolu xam-xam moo la koy may man salaka tariqan yaltamisu fi ilman zahalallahu lahu tariqan ilal jannati képp koo xam ne sóobu nga aw yoon di ca sàkku xam-xam bu jëm ci yàlla yonent bi nee ne yoon woowee day yomb ci yow ba ngay agsi ci yàlla muy ci tabbiwaay boobu ñaareel ba it aqiiqa sëñ bi tuddaal na ko aqiiqa muy loo xam ne am na ko ma dégg mu koy misaal ci ne mooy sàkket wu amuti xer boole sariya ak xaqiiqa mooy sàkket wu amee xer sàkket nag lu muy baax baax mi ngi gën a baaxee ci bu amee ay xer nag wa waman yaxut bahral xaqiqati bila fulki sariati fa umkuhun jala nee na ndox weesuwul géej nekk nii nga war ko sóobu gaal gu dëgër nekk nii kenn terewu la ko nga mën a jël gaal gi sooboo ko géej gi defoo ko lu may di soobu géej gi noonu rek góoj gi amute banqaas ndof gu réy noonu te ndof googu di jëmee boroom ci loolu alkande kon munta ñàkk waaye waaye nag dafa mel ni xaqiiqa am na lu mu laaj ndeki nit ki tomb bëggu yàlla bu newul ci moom mu di ko tàgg muy tàggatu nag ci loola ngir ngir am ko bu sooboo aqiqa day échec ndax li tax muy échec mooy yaram wi tàmb ko xol bi tàmb ko cër yi tàmb ko ba tey bëgg àddunaam des na lu bëreem des na fekk ndeke daa war a tàggatu tàggatu nag ba nga xam ne bu tàbbee aqiqa day fekk la day fekk dugg du dugg ci aqiqa day daal neex ci moom lool donte waxoon nañ sax ni bokkoon na ci li li ñuy woowee njëstal jëf dara di ko neexlu waaye neexlu gi ma bëgg a wax bëggu tug Euh, neex na daal ci man damay toog di jaam yàlla neex na ci man lii ma déedéet li ma bëgg a wax mooy day dem ba cër yi tàmm ko miin ko nga xam ne fekk na tàggatu woon nga ci ba man ko ndax euh, li li tax mu wax ko nee na su amul li gën a bon te bu amee jaam bi du mucc mooy ak waru nee na moo ciy tàbbi kon jàngal nga nu ne waru bari na lu di nekk defe nii lu mu lu mucc la lu jëm fenn la ndeke booba waru moo ko fes dell te waru mu ne su ko defee lu du ci dundug àdduna gi ni ko alxuraan waxee fala taxurannakum alxayaatu dunia wala yaxurannakum bilal garur ki nga xam ne moo ciy ware it àddunaa ko ñoroon fees dell ci xol bi ba ku muy war ci àdduna la lay won ju fees dell nga topp ca topp ko ci ba waru ca dundug àdduna gi wan la boppam nga topp ci ba waru ca waaye boo tàggatoo bàyyi ko bàyyi ko sori ko di muslu yàlla di sikkar di jàng alquran di moytu lu bon da nga dem bañ moom da lay yi ndax yooyu bëgg ko ndax turu yàlla dafa da ciy feeñ saa su ne te turu yàlla woo fi feeñ moom da koy dàq ginnaaw da koy dàq nag danga dem ba yow da nga wéet ak sa borom ba ba ba boo duggee ci yooyu war googu ak taxee di yooyu nga xam ne sunu borom da koy indi ci jaam bi ngir yu muy jëf yu jëm ci yu jëm ci yooyu yooyu yëpp yàlla dana la ci musal saxaawaat nag mooy ni nga ko waxee léegi rek. fu ne mën na fa amee barab boo xam ne nit ñi dañ ko samp te la tax ñu samp ko yàlla taxul loole ak texee di mën na caa juddoo ñu bari sax ci nit ñi dañuy firee majaalis saxaayu jotaay yi way texee di déedéet jotaay texee di ga foo xam ne jotaay booba lañ fay waxtaane wala lañ fay jëf ak texee di mën na caa juddoo ak fu ñu ko mën a defee rek loola mën naa moytu nga nga jàngalaat ñu it ni bokk na ci ngëneel yooyee nga xam ne danañ ko am ci loolee ñu leen digoon ci topp gaa ñu baax noonu seeni wax ñu di ko seet seeni jëf ñu di ko seet ba mujj dootuñu gis leen lu wir ndax dañu dem ba am saxaada nit ki bu demee ba am saxaada li muy dund mu leer ko nàññi ndax la koy may mooy lu masaan a gis muy wax te mu lënt ci moom wala muy jëf te mu lënt ci moom da cay taxaw euh, mën nañoo la ne nettali taalibeeb sëriñ boobu naar boobu nga xam ne sëñ bi daa daje woon ak moom ak sëñ Mamour Anta Sëli ak xaadima jaxate kale naar bi yàlla dogal day tari lépp euh, sëñ xaadima jaxate ci bëgg xam-xam gi mu ne sëñ bi waaye bindal lii na sëñ bi nee na boobu boobu tu tànk la sëñ bi nee na lu béy du wax ma jël ko di ko bind di ko bind sëñ bi nee na ñu dem ba mu yàgg mag naar bi ñu daje bi ñu dajee mu doon naar bu tëxët nee na jékki-jékki rek génne jëf jëf yi muy muy jëfandikoo pon mi daal di daal ma waaye loo xam ci li sëñ bi nee ma ne ko ah yow koy defal sa yëf rek te ba ma mu ne ko waaye lii da bëri coow daa bëri ñii na dagan na ñii na daganul ñii na ñii na xaraam ñii na xaramul ñii na dañ ko sib nangam nangam sëñ bi ne ko booba nga ci waroon a taxaw nag ndax yow ginnaaw dafa lënt ci yow rek boobu nga ci waroon taxaw te sëñ bi ne ko xanaa yow Abdourahman al Akhdari li mu tax déggoo ko nee na euh, mukallaf mu ne balaa jëf dara day xam la ci yàlla atte mu dëkk ko jëf naar bi foofee la wàcce ba ni mu jébbalu Sëriñ Tuubaa kon xam-xam rek Sëriñ Tuubaa jaaree na ci ci yàlla yóbbu gi ko ci yóbbu ci yenn martaba yi ak fi mu ci toll ba man cee dem ba am taalibi boo xamante ni bii ña nga xam ne ñoo doonoon ay sëriñam ci bu njëkk gis ko ba naw ko ba ko bay bind ay wayam sëriñ Tuubaa ci benn masala boo xam ne ñépp jàng nañ ko ci téere yi mu delloo ko ci téere boo ne wóor na ma naar bi muy jàng yim njëkk jàng ci la bokk ba naar bi xëy doon ab taalibeem kon loolu mel na ni eh, sëñ bi la ko ko may mooy taxawlu ci wax ak jëf joo xamante ne bii ba xam li ci yàlla mu mel ni it jàngalaale nga ci it ni ñu war a tax taxoo ak ragal yàlla te ragal yàlla moom ma sama dégg Serigne Saliou ne mastatantum man ngeen ko ak tuqeeti yi bu ngeen ko mënut it mastatantum man ngeen ko mastatantum buñ ko amee ne rek daanaka mooy ak xeeti ndax fi ni keleen lu ne lañ ca tolloon nga ci ragal yàlla day def ba yàgg dëgg dëgg ragal yàlla tàbbi ci yow kon mel na ni bu fekkoonto ne ak tuqeeti yi barab la bu war a dem ci mastatantum la ñuy jaar kon takkoo gi takkoo gi nga xam ne takkoo nañ koo ragal yàlla ca tàmbali ba ak fa ñu yem mooy ragal yàlla daa warta am terminus wala ab tàmbalikaay mooy ragal yàlla nit ki mu juddoo ba doonub jullit rek ba xel ci ak jullit rek ragal yàlla moo war a ne ci xool ba ci woo koor gi ñu ne sax yàlla ne dëggalewuma ko ci yéen lenn lu may xool ba xam yéen ñu ragal yàlla ngeen wala def ko muy bis yu limu nag ñu ndaw yu tuuti nga mën a nekk ci sa biirum néeg kenn gisu la nga jël sa ndox mu sedd naan wala nga jël sa xéewal xéewalu ba suur génn di taflikum ñëpp ne man damaa woor kon toog gi ngay toog ci guéet doo naan doo xool loo wërta xool doo wax loo wërta wax ba ngoon jot yàlla nee na li ma xam ci yéen xam naa ko bu yàgg na xam maa leen bind def ci yéen melokaan yi waaye foofee laay xoole kon euh, sëriñ bi won na ni ànd gi ngay ànd ak ñoom it ay jumtukaay de yi nga war a yore ngir mën a ànd ak ñoom kon man ma déggee naa ci it ni sëriñ bi boo ko joxee sa bopp ba noppi na doon kuy digle na doon kuy tere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 kon bu boobaa la ñuy wax loolu waaye bu nekkee ci moom faw mu doon al amiru wan naahi muy digle di tere mooy ni ko sëñ bi waxee woon ci maxaaliqu niraan rek ne man talabal wusula lil jalili falyatasim bi sunnati rasuli bi an yulaazima mutian la yamil fi zahirin wa batin an sabil yaquuduhu bi tarkil aada nee ku bëgg àgg ci yàlla na nga jafandu ci yoonu yonent bi alayhi salaatu wasalaam te jafandu ga mooy nga takkoo koo xam ne day topp yàlla koo xam du jëng ci zahir du jëng ci bàttin mooy boo ko gisut mi ngi ci yàlla boo ko gisee mi ngi ci yàlla dalay wombat ci xam-xam ak jaamu yàlla yar la ci bàyyi loola aada yi mooy li waxoon rek ni addul iraada bi xawli saada tarkul muridi maa leyl aada summa rujuuhu ila al mu'taadi qabla wusulihi kal irtidaadi maanaam ak murid dëgg mooy murid bi lépp loo xam ne doonoon na aadaam mu bàyyi ko tëdd nu la neexee lekk nu la neexee waxee noo la neexee la nga baaxoo woon it mu ci delluwaat ndax boo ko defee dañuy defee ne dangaa tubbi kon bu fekk bu àndeek ñoom noonu rek sóobleen ci yoon woowu fa mu bëgg àgg ak ñoom dana fa mën a àgg kon njàngat yooyu nga xam ne jàngat nañ ko ci téere bi daf ñuy indi ñuy xam ne ne sëñ bi kon sëñ xaadima jaxate kala bi mu bindee loolu yi mu bind jox ko ko ba sëñ bi waxee nii mu waxee wane ne gaa yi fi nekkoon te jóge fi dañ leen a war a jooy ndax lañ nekkoon dem na kon sëriñ bi mi ngi ñuy bëgg a jàngal ni yoon la woo xam ne ñu ngi ci nekkoon kon bind nañ ko ba fi mayit maa ngi nii ñëw leen ànde ko man moo tax sëñ Abibu li ñu jàngatal ci mag ñi àndoon ak sëñ Tuubaa ak seeni melokaan ak sëñ ma Jaxate Kala wax yooyu mu wax ci yoom nga xam ne bu leen sëriñ bi woowoon ne leen ñëw leen fii bu ñëwee tremblement de terre dina am ngir ni àndeek moom ba fees dell ci yàlla bala ci doon dox nga xam ne mag moo ci cité woon tey mu doy sëkk ab téere mag moo ci doon jàngat tey mu doy sëkk ab téere kon sëñ Xaadima Jaxate Kale kat mel na ni junj boobu mu junj li sëñ Basiir ne jubluwuñ ci mu jaradul bu kaa ay jooyi kese rek kon wane na ne sëñ Xaadima Jaxate lii sëñ bi naroon a dund mel na ni yàlla wan na ko ci dara ba tax mu ne ko jooyal ñii sëriñ bi ci dégg gi ak la mu waroon def ci yàlla yàlla dogal ko te mu xam ko tax mu waxee nii jël mbooloo mi soobee leen ci nii ma leen ci soobee ba tey jii kon euh, foofu laay tënk kàddu gi rek allahuma salli ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi tayyibina tahirin Serigne Galas ñu ngi lay sant bu baax ci commentaire bu am solo bi nga xam ne indi nga ko ci lii Serigne Habib bu doon wax dëgg yàlla am na solo lool te leerlaat na lu bari ñu ngi lay sant bu baax xam naa kon day mel ne julli jot na walla daa am question yooyoor kon kon man ngaa laaj question yi su ko defee ñu daal di julli incha allah. wala nga ñëw ni hmm? jërë ngeen jëf ci am solo wu ngeen loon tey di ñaar fukki fan ak juróom benn ci Cheikh Ramadan ñu ko doon am thème bu am solo di waxal bokaaw di ñetteelu partie bi suñ Abibu Jatara doon ko def ak suñ Galas Jatara ñu leen sant bu baax di leen gërëm di leen ñaanal baax suñu borom barkeel xam-xam bi di yàgg leen fi naa am na fi ñaar laaj yu fi ñëw rek euh, kii day laaj mu ne lu tax sëñ bi taalif xasida gi ak xasida gi ñu ko tax a jóg bismillah <coughs> euh, tax sëñ bi taalif xasida ak xuqal bu kaw lu ko tax a jóg loolu day mel ni booy seet moo jataay yi loolu la doon tontu muy bu bu njëkk ba bu ñaareel ba ak ak ak bu bu tey bi nga xam ne mooy bu mujj bi li li li li fam li li sabab si li sabab si bu fekkee na xaj na teewlu toon njàlbeen nga ba dégg la cee la ci jot a indi sabab si ñu wax ne suñ xaadi xaadi ma jaxati kala borom xam-xam bu mag boobu nga xam ne sëñ bi jaar na ci moom jaar goo xam ne nag dañoo wax ne nekkut jaaruk yor téere mu di ko tëralal di ko firil waaye ginnaaw moom woykat la woon boo xam ne kawteef la woon ci ci ci jekku gi mu jekku woon bind euh, ci wàllu arab moom xaadi sëñ bi daan bind di ko jox mu di ko seetal waaw waaye da caa dox ab diir ba mu yàgg dafa mujj daan ko wax ne ko euh, doom nga woon léegi nga mujj di di bàyyi taalibe nga woon nga mujj léegi di sëriñ léegi kay loo bindati indil ma ko ngir ma mokkal ko waaye lu ma lay toppalati moom léegi xaad yi moom nag dañuy wax ne dafa am euh, taalibeem boobu mas yebal ci sëñ bi euh, sëñ Modou ñaan wala sëñ ñaan euh, ñaan la sant moom la yebaloon ci sëñ bi am ay yitte yu mu koy doxal léegi nag kooka moom moo nettali sëñ Bachir wax ko ne ko Euh, dafaa yàgg lool laata muy gis sëñ bi te moom la mu baaxoon mooy fu mas a dem fu ko xaati mas a yónni moo xam ci buur la moo xam ci yeneen kilifa fu man di doon rek ab gisam da yomb fi bi ñëwee ci sëñ bi nag dafa yàgg lool soog ko gis gis gis nga it lam ca yaakaaroon day mel ni amu ci ndax dafa gàtt lool diggante bu gàtt la ba loola mel na ni xawoon na koo metti sëñ bi nag wax ko ne ko euh, dafa toll ci tolluwaay yoo xam ne daal fi mu nii dafa am lu ko ñor loo xam ne moo ko gënal àdduna li ci biiram moo ko moo moo moo waral lii am lu mu ko ca wax loo xam ne tax na ba xelam dal ba ba ba xaw caa féex ba mu demee nag ba nett li xaadi nag la xew xaale yéeg ne nag am sëñ bi am na am na ci lu mu nekk daal loo xam ne day mel ni bëgg na mu gën ko ko leeral ca la bindee bayt bu jëkk wi xam ne mooy xuqal buka wa ala saadaati namwaati tabkil araadi alayhim ka samawaati bayt woowu xaadi ma jaxate moo ko bind yónnee waat ko sëñ bi di ko won ne ko moom day mel ni moom xam na am na lu mu jot a xam ci li sëñ bi nekk waaye dafa bëgg mu gën ko ko leeral Euh, am na ay sang ay kilifa yu baax de yu fi jotoon na nekk yoo xam ne yàlla jëlee leen fi ñooñu day seen melokaan yu doy waar yooyee euh, ak ni ñu demee nii daal ñooñu daal ñu mat a ñu mat a jooy lañ euh, ca la sëñ bi daal di jëlee nag xalimaam aywa ab kii ab kii alayhim waar ju fil bu ko ay xadan ba xasida gi jeex léegi nag loolu kon loolu mooy sabab si xaadib moo ko sooke li li li li mu ci indi nag nga xam ne moom la ci doon leeral mooy melokaani nit yi tasawuf yu jëkk yi nga xam ne dañoo selloon lool yàlla rek ñor leen yoon wañ jaaroon mooy lan ñi leen ca tegoon muy sëriñ su mat sëriñ soosé ñoom tamit yan melokaan la ñu yoroon ak yan daraja yoon woowe fan la jóge ci di ko topp ca saxaaba yi ba ci yonent bi sallallahu alayhi nga xam ne kon jàngale tasawuf daal xasida gi ba nga wax ne bu la neexee nga ne jàngale tasawuf moo ko tax a jóg ndax day wone melokaani nit ñu baax ñi tasaw nit tasaw fi day wone tamit seeni daraja euh, li ki ko sabab mooy Xaadima Jaxate ca bayt woo nga xam ne moom la bindoon euh, yónnee ko sëñ bi jërëjëf sëñ solo boobu ki day laaj lan mooy warteefu murit ci xasida gi hmm. lan mooy warteefu murit ci xasida gi waaw euh, loolu de dafa mel ni ci ci mujj gi am na am na lu ma ci waxoon loo xam ne day mel ni xaw na ko xaw na ko mën a tontu mooy sëñ bi eh, xasida gi mu bind nii donte ne gu gu gàtt la ci ay ay ay bayt waaye dafa fees dell ak jàngale dëggi-dëggi tasawuf aw lay la boo xam ne sëñ bi teg na ko ci suñu kanam ndax won nañu moom ci lu mu nekk won fu ak ak ñi mu àndaloon lu lu ñu nekkoon lu ñu doon dund muy dëggi-dëggi tasawuf bu sell boo xam ne nit ñu baax ñooñu ci lañ nekkoon eh, mu leeral ñu ko ci gën a ci anam ga gën a mat ba tax na kon euh, làmbatu kon day mel ni amatut waaw maanaam yow sëñ bi nee na lii la bëgg fii la nekkoon lii la doon dund moom waaw ñii tamit ñoo ko ñor ba tax mu jël xalimaam di wax ci ñoom lii mu wax ci ñoom kon képp koo xam ne kii ci njabootam nga bokk euh, di ko tuddoo euh, xam bëgg-bëggam le warugar la ci yow waaw xam dëggi dëggi tasawuf bi nga xam ne moom la sëñ bi doon dund nga jéem caa tënku loolee warugar la tasawuf nag ñun sama maas gi ñu bare bare day mel ni tur wi rek moom lañ xam jéemuñoo xam lan mooy dëgg-dëgg bi ñu ko dund loolu li suñ mun taxaa di wax naan sëñ bi xamuñu ko dunduñu ko loolee day mel ni dafa dafa dafa dafa laal nag ñu baree bari ci sama mas su ko defee nag kon lañ ci mën a génne mooy xam waaw ndax sëñ bi ginnaaw na ko sëñ Sidi Muxtaar waxee woon du ku ñuy topp ci wala diine bokk du du des ci wee gis-gis ak yëg-yëg xam ak ndigal lañ ci wéyee sëñ bi nag deesu ko topp ci ni nga bëggee ndax ay bu ma waxoon ci biir afaraayta man ittaxada ilaahahu hawaahu am na ñoo xam ne seen bakkan moom lañ jël def ko mu nekk seen seen buur def ko mu nekk seen yàlla ñu di ko jàmm waaye lu lu ko niru xawes na ko mën a wax ci ñenn ñi ni ñuy toppee ni ñu wax ne moom la ñu toppee sëñ afaraay tamani taxada cheikhahu hawahu tamit am na waaw ñoo xam ne seen bakkan la ñu topp waaye topp gi ñu topp sëñ bi bu sëñ bi diglee loo xam ne lu deex seen bakkan la topp seen bakkan ñu def su diglee lu naqar seen bakkan ñu teg fële loolee déedéet dee su ko toppee noonu yow da nga koy topp ci na mu gisee ak na mu bëggee ak na la digalee su ko defee nag balañ koy loolu bala muy mën a am nag dañuy xam kon euh, xasida gi li ñu ci war moom mooy nañu xam li ci sëñ bi wax lu mu doon suñ ko xamee ba noppi nag ñu jéem caa euh, tënku suñu kem kàttan te ñaan yàlla mu dima dimbali ci wa axiru daawana alhamdulilah rabbil alamin jërëjëf sëñ Abibou ci tontu bu am solo bu xam naa bu ñu ñëw ci laaj mujj bi rek dañu jàllale nuyoo waa Brescia mi ngi lay sant bu baax la gërëm di la ziar bu baax di wax ne nam na sa njàngu alxuraan bi ci koor gi ak ku mel ni si Moussa Niass mi ngi lay ziar bu baax di la gërëm jaar waa suñu Fallou Diassara suñu galas ñu leen di jaar ñoom tamit ñu ngi ñu doon bàyyi xel waxtaan waa Brescia ñu ne ñu leen sant di leen gërëm di leen ñaanal bu baax di wax na mën a njàng mi. noo ko dañu ñëw ci laaj mujj bi rek kan mooy ab sëriñ ak kuy ab sëriñ yan critère la war a gis si moom comme topp ko. waaw loolu de mooy mooy ba tey ba tey xasida gi moom la xasida gi doon tontu rek sëriñ bi mat sëriñ dëgg-dëgg nga xam ne moom lañu war a topp. mooy bi mooy sëriñ bi nga xam ne moom la sëñ bi doon wone ci biir xasida gi ay ay ay melokaan yu baree bari la waaye manees naa wax ne ba ci gën a fés te moom la jiital ba noppi boo boolewaat ko ci mujj mooy xam-xam ndax sëriñ bi moom la tuddee euh, euh, euh, daliil mooy kii gindee waxoon naa ne yoonu tasawuf fii sëñ bi da ko doon misaal di ko jegeel sama maas gi nga xam ne seenu dégg sorewuñu mu wane ne yoon wit mi ngi mel ni rek Euh, soobu taxaw mi ngi mel ni rek nga ne damay jóge barab sàngam dem barab sàngam damay tukki tukki boobu nag dafa am lu mu laaj laaj na nga xam fi nga jëm fan la laaj na euh, euh, ku la ku yoon wi laaj na àndandoo laaj na ay ba ngànnaay nangam ak nangam ba mu jeex loolu nag kon la ci jiitu moom mooy sëñ na doon ko xam na doon ko xam xam gi nag sëñ bi wax na ne moom faaw day xam xam-xamu sharia diine da koy xam bu baax a baax ba noppi xam xaqiqa day xam sharia day xam tasawuf bu wér a wér a wér su ko defee ndax nit ki lu mu lu lu lu mu amut mënu koo joxe fu mu fu mu fu mu xamut mënu faa yóbbu kenn su dut loolu nag su fekkee ne nag tegewut ci xam eh, loola su boobaa day mel ni eh, ñu ànd di tëñëxu lay doon waaye xamu kese googu doyut kullun min al naa lii aalimun waaye wariun wariun day xam ba noppi nag day jëfe xam-xamam day doon koo xam ne kii li ko yàlla xamal ci sharia xamal ko ko ci xaqiqa da koy jëfee da koy dund waaye bu mu doon koo xam ne kii rek day xam-xamu kese di di di su kon jàngalekat lay doon jàngalekat nag kooku moom bu la jàngalee yow yaa moom sa bopp bu la neexee nga jëfe bu la neexee nga bañ jëfe waaye ki ki nga xam ne nag moom la war a topp mooy ki xam ba noppi di jëfe xam-xamam tënku nag ci sunna wal yaqtadi al aabidu bil muttabiin waaw di sunnati rasuli ahmad al makid kii xam ba noppi nag xamam googu lépp nag mu tënk ko ci biir yoon wu yonent bi sallallahu alayhi wasallam jaaroon kookee mooy kañ war war a topp boole ci nag jikko yu rafet ak uh, te mooy melokaan yi nga xam ne moom la sëñ bi doon tudd muy melokaan yi gaa yu baax yi la a ngeen jëf jërëjëf sëñ Abibou ci tontu bu am solo boobu xam naa kon dañuy taxalu foofu rek di profité di leen fàttali programme wu suba bi di ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci sa Ramadan tombé le 21 mai kon muy thème bu am solo di mburum koor ñu koy ànd ak sëñ Souleymane Badiane modérateur bi nekk sëñ Basirou Diatara kon ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm ñi nga xam ne ñu doon bàyyi xel waxtaan fii ci Maktabul Cheikhul Khadim Daaray Kamil di ko ànd ak télé bi di Touba Vision ak ñi ko doon jàllale mel ni Bichri TV doon na ko jàllale Al Académie Minan Mouride TV ak Touba TV ñu ko doon jàllale ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm kon dañuy jox sëñ Mbàkke bu ko defee mu tëj incha allah jërë ngeen jëf. ok jërëjëf sëñ euh, ñu ngi lay santaat bu baax ci leçon bu am solo bi ak njàngat yi. di santam sëriñ Galas Jatara ci taxaw seetlu yi nga xam ne indi na ko ci xam naa kon dañuy jox sëñ Moustapha ñu ñaan dal di yeewi ko ba suba insha allahu taala sant bu baax ci waxtaan yu rafet yi ngeen fi def ak tomb bi ngeen jël tey mu nekk bu am solo ndax li ngeen ko waxee rek xasida la koo xam ne man de ci sama gis-gis mooy sëñ bi dafa bëggoon a wane tasawuf wane na kat bu ngeen tasawuf ni muy defaree nit ba mu mat sëkk ba mat royukaay ku ko bëgg a xam gaa yaa ngi nii ñi mu defar ngi nii ñi nga xam ne tasawufa leen defar ba ñu mat sëkk mat ay royukaay di ay modèle mu ngi nii ndax am na ñoo xam ne bu njàngee tasawuf wax yi day bari werante yi day bari ba am na ñoo xam ne sax dañuy jàpp ne tasawuf ay misaaliyaat la rek maanaam nit mënu koo jëmmal wala mu dund ko ci ak dundam bari am na ñoo xam ne daanaka loolu moo tax ñu sori tasawuf boo waxee ñu ne li ñuy wax rek ay misaaliyaat yoo xam ne daal ay xalaat la yu sori yoo xam ne dañuy wane loo xam ne nit mënu koo dund loolu am na ñoo xam ne sori nañ tasawuf te loolu moo tax ndax ñoom dañoo jàpp ne ay am na ñoo xam ne ñu jàpp ne soo falsafa la rek bu ñu jëlee feneen wala bu jëlee ci ñeneen am na ñu jàpp sax loolu waa Inde wala euh, buud al buudiyuun kenn ku ci nekk am na looy def loo xam ne dafa xaw a niroo ak tasawuf ci seeni jaamukaay yàlla ci seen ni ñuy defee loolu ñuy tuddee concentration di toog ba yàgg ñu toog ci benn barab mel ni ku noyeetut defatuñu dara toog def ko diir bu yàgg loolu nga xam ne dañ koy niroon rek al uzla bi nga xam ne moom la mu tasawifoon yi di def beru nekk ci benn barab duñ xalaat dara lu muy yàlla yooyu yëpp am na bindkat yoo xam ne dañuy indi xalaat yooyu wane ne yii tasawuf du lu yees lu fi gaa yi nekkee la ba tey yii am na ñoo xam ne am nañ seen tasawuf diine ju ne am na tasawuf ñoo xam ne dañu saxal loolu waaye nag sëñ bi bëgg a wane na tasawuful islaam yi bii nga xam ne tasawufu sunni la am na ñu mu defar ba ñu nekk ay gaay yoo xam ne liñ nekkee woon ci kaw suuf yéeme na ba ku ko xam day mel ni suuf saa ngi leen di jooy waaye doomu aadama yi ñoo leen gën a war a jooy mu tàmbalee ci boppam ndax jooy gi mooy la mooy nit lu muy jooy lu nekk sopp na ko sopp na ko ñaare lu bëgg bay jooy lu nekk loola sopp na ko lu bëgg bay jooy lu nekk itam mën naa dem ba jàpp ne waaw ndax man lii ma bëggoon walla lii ma jisoon ndax ñu mel nii mën nañoo amati ndax gaa yu baax yu mel nii ndax mën nañoo amati ci jamono sëñ bi nag bëgg isbaat ne ah kay mën naa am ba léegi xam-xam bi ko doon maye mi ngi fi euh, li ko doon maye muy tarbiya mi ngi fi li ci des li ci am solo mooy iraada bi rek waaw quwwatul iraada bi képp moo ci am solo waaw kon xuqa dafa nekk loo xam day jëmmal tasawuf amaliyan li ko li ci des lépp muy tër yi dañu la koy jàngal nazariyan waaye ki la koy won ne la kat lii ñu lay wax mën naa am te amoon na kon mën naa amaat ñu mel nu gaa yu baax yi bu leen yaakaar ne dañ koy nettali muy ay xayaal wala muy ay asaatiir wala muy ay wax yoo xamante ne nit da koy wax nii rek di ko gént waaye lu amoon la ñu mel nii ñoo ñooñee amoon ba mel nii nag li taxoon ñu mel ko lii ak lii ak lii moo taxoon ñu mel nii bu doon ko feebar tey ñu mu mu mu mu faju ba wér ñu di la wan ne ordinance bii la doon jëfandikoo docteur bii moo ko doon faj ordinance bii la doon jëfandikoo docteur bi ko doon fajit mi ngi nii ordonnance yooyu nag ba fii mu toll mi ngi fi docteur ya doon fajit ba tey am na donte feeñu na ñam mel mel na mel bu njëkk xëy na mën na am weñ wàññiku la waaye ba léegi si am na mi ngi am te kenn la ci moom moomu muy sañ Tuubaa moom ci boppam moom sëñ Tuubaa ci boppam doy na ci ndax li muy wax nii ak di jooy ñooñu génération boobu mu defar jiil boobu jiil boobu nga xam ne defar woon na ba mel nii ba mu di leen jooy defaraat na jiil boo xam ne photocopier la ca booba te nañu meloon lañ mel nañ doon doxee la ñuy doxee nañu doon jaamoo yàlla lañuy ñuy yàlla mooy jiil bi nga xam ne ñoo ko waroon moom ci jëm boppam mu defar leen boppam ñooña boo leen seetee seet ñi muy wax nii seet seeni melo day mel ni lu ñu photocopier benn lañ kon loolu moom Sëñ Tuubaa woone na ne na ngeen xam ne te tasawuf du xayaal du loo xam ne dañ koy wax nii rek muy ay asaatiir déedéet lu mën a defar nit la te defar na ay nit ba mel nii kon mënees na cee defaraat ay nit bañ mel nii moom defaraat na ci ay nit yu bañ mel noonu li ngeen wax sànq kenn ci ñoom kenn ku mu defar rek boo ko seetee boo toogoon tey jii euh, siira zati zati boo ko doon bind biographie moom kenn ci ñoom boo ko doon bind bio biographie bi nga bind ko ba mu jeex boo ko xoolee boo ko màndaxee kenn ci ñooñu muy tudd ci uqa nga gis melo yooyu yëpp kooku remplir ko ba mu fees dell ci ñi sëñ bi defaroon bari na ci lool kon loolu day mel ne day wone ne tasawuf pratique la tasawuf du ay nazariyaat tasawuf zawk la zawk du rek lu ñuy wax nii di ko conférence ak waxtaane déedéet tasawuf moom zawk la nii gaa yu baax yooyu meloon am ay sëriñ yu wér yu ko mat ñu defar leen bañ mel ni ñu war a mel loola la leen ko may mooy zawq nit lu mu mësut du xam lu mu saf tasawuf danga ciy dugg ba ci biir nga door a xam lu mu doon loolu moo tax ku mel ni xazaali radiyallahu anhu bokkoon na ci ñoo xam ne ci njëlbeenam dañoo xawoon na euh, contre tasawuf ba am ay wax yu ñu ci daan wax waaye moom day day day nit ko nga xam ne intellectuel bu honnête la boroom xam-xam bu gën a honnête xasaali amul bariwul mujj mu xoolaat boppam ne man li may weddi te awma ci preuve nit looy saxal war nga ci am preuve bu leer dalil bu wér waaye li ngay weddit war nga ci am dalil bu leer te man tasawuf mii may weddi wala ma di ko sikki sàkk awma ci benn dalil waaye lan mooy tax ma man ci am dalil bu doon lu ñuy jàngale kon jàng naa ko waaye taxut mu convaincre Xasaali jàng na li gaa yi bindoon lépp ci tasawuf te da taxut mu am iqtinaa lu mu def gaa yi dañ ne ko jàng gi nga ko jàng du ay théorie tasawuf pratique la boo bëggee xam tasawuf da nga ciy dugg da nga ciy soogu suluuk mu ne ah li wax moom ñoom gannaaw jaar nañ ci man it bu fekkee bëgg na maa xam rek yi ak lépp dem wutub sëriñ mu di ko sikarloo di ko dugalloo xalwa muy def di nekk ca lool nekk ci lool ba moom moo gisal boppam dem ba egg ci ne dem naa ba mu leer ba naññ ne ñii ñooy ñu sóobu yoonu yàlla jëm ca keneen ku jaarut sax ci yoon wii ñu jaar pour nga egg ci yàlla daanaka du mën a nekk xasaali dem na ba egg foofu te loolu suluk moo ko may kon sëñ bii day wane ne tasawuf suluk bi mooy li ëpp solo danga nga gis koo xam ne jàngul tasawuf xamu ci dara ñi àndoon ak sëñ bi nii da gis mag moo xam ne tey yow nazariyaat yi nga am ak li nga xam ci xasaali ak li nga xam ci euh, xusey rek la nga xam ci abdul xaadir jaylaani ak la nga xam ci abdul wahab sharaani ak yooyu yëpp moom xamu ko mën na ko bañ a xam waaye bu ngeen dikkee muy pratiquer ci sa kanam nga xam ne kii lañoo ñooñu doon wax moo mi ngi koy mi ngi koy jëmbal te mën naa am xamut yooyu yëpp mën na ko bañ a xam kon loolu day wane ne tasawuf lu ñuy jëfandikoo la door koo mën a yëg door koo mën xam kon ñu ngi leen di sant bu baax ndax sëñ Xaadim si la macha allah si njëlbeen gi indi na fii xalaat yu am solo yoo xam ne ñëpp la yéem waaye sëñ Cheikh bu Kebe itam bi mu ñëwee macha allah andi na ci jaanib bu am solo lool ndax loolu moo am solo moo di téere bi li taxoon ñu ñu war koo def noonu mooy ku ne am nga ci dafa nekk lu yaatu loo xam ne ku ne mën nga ci indi sa gis-gis mën nga ci indi xalaat boo xamante ne day gën a yaatal di gën a riisal li nga xam ne mooy jëmmi téere bi ci boppam ba nit ñi gën koo mën a xam tey jii sëñ Habib ñëw na moom itam ci ci feemam ba indi ci loo xam ne moom itam incha allah ku ko déglu moom it da nga ci déggaat lu yees lu bokkut ak la nga xam ne moom nga déggoon sëñ Fallou Galas mi itam moom analyse bi mu def ku ko déglu moom it xam ne ah li mu doon wax xam na ko waaw ndax moom ma nga jógee ci daara ji dégg nga kon yooyu yëpp. noonu lañ war a jàngatee mbindum sëriñ bi man damay wax ne mbindum sëriñ bi ni ñuy def séminaire yi toog ba yàgg ñuy def séminaire jàngat benn téere ba xam ko bind ko xulaasa ko ci teyit ña koy ña koy jàngat na doon ay borom xam-xam yu wuute parce que ñun dañu am nag loo xam ne dañ koo gëm nun doomi soxna loo xam ne wala balut nun dañoo jëfee nun rek noo wala bal ñun fi ne nii dañoo gëm ne nun dong ñoo waral kooku njuumte la njuumte la am sëñ bi li muy bind mënees na ci jin dañ ci mën a génn jawaanib yu bare bare bare bare yoo xam ne kenn ku ci nekk sa xam-xam mën nga ca dikk analyser ci dara lu am njëriñ génne ko woon ko nit ñi jëriñoo ko ki jàng économie mën na ko ka jàng philosophie mën na ko ka jàng wàllu mbay mën na ko ka jàng wàllu leen mën na ko waaw xoolal bërki démb am na ko firi fii ci wabaa bi am rek benn bayit boo xam ne ke na mu ko firi macha allah wan fil wabaa wal balaaya kullaha anha wa tayyib shurbaha wa aklaha dafa naa xaadim si la la bu dul sooy bu kebe di xaadim si la mu ne sëñ Tuubaa wone woon na ne balaa balaag de day am balaa de moom mu ne su ci dara su sunu borom moo koy wàcc saa bu ko soobee saa bu ko neexee mu indi ko la jaam bi war a def nag mooy la ci jiitu mooy ñaan ñaan yàlla balaa ba dem kon gis ngeen suñu balaa bii nu nekk ñi ngiy wax mbiru médecine bi wax mbiru leneen lu ne waaye li ci war a jiitu mooy ñaan ñaan yàlla mu jëlee ko fi ndax ñaan moo ëpp doole lépp kon ñaan gi moo war moo tax mu ne wan fil waba wal balaya kullaha yépp kullahaa ji moo lay wan ne yëpp da amoon na mën naa amat waaye anha wa tayyib shurbaha wa aklaha ji mooy ah li koy dàq kat ñaan gi ci la waaye foog seen loxo dugg ci mooy balaa ñaari saa boo ko gisee mu ñëw mi ngi bàyyi ko ci lekk lu ñuy lekk balaa bii nga xam ne moom la ñuy tuddee corona tey ñi koy gëstu wax nañ ni ci ay mala la bàyyi ko foofee ci sud parce que ñoom dañuy lekk mala yëpp ci mala yi ñuy lekk ci la balaa bi bàyyi ko corona bi médecin yeeg ñoom ñëpp xam nañ ko rab bàyyi ko sax xam nañ ko kon balaa li ci ëpp mi ngi bàyyi ko ci lekk ak naan lekk gu setut naan gu setut sellut moo tax mu ne wa tayyib surbaha wa ak na ngeen fexe ba li ngeen di lekk na teey na set na sel la tàmbalee ca fañ ko jële ba indi ko ci marché bi ñoom ñëpp bu ñoom ñoom ñi ñëpp sellee di ko setal ba mu egsi ci nit ki ba ba muy egsi ci cin liñ koy toggee ba bi muy egsi ci fi ñu koy lekkee lépp di set loole da caa bokk moo tax sëñ bi ne surbaha wa aklaha na nekk tey kay jaay ci marché ba la muy jaay na set wecc na propre na mel na war a mel qualité ba ka koy indi noonu jigéen ji koy togg noonu ba bam koy togg di ko indi di ko taaj ci kanam nit ñi ñu ko jëfandikoo na set wecc xool leen loolu tey ni mu walaabalee ci sunu jamono ji ni mu wallaabalee ci tawat ji nu bokk nekk képp te docteur yi lii sëñ bi wax wax nañ ko fekk na sëñ bi waxoon na ko ba noppi lekk lekk gu baax naan lu set loolu bokk na ci li ci musal doomu adama ndax moo moo ko fi indi sabab si li fi indi tawat ji mooy lekk xoolal bayit bi déggin wu sell woowu mu indi déggook lool jamono bu ne ak xaale gu ne ak fuñ mën a toll kon loolu day wane ni xaside yi doonul rek loo xam ne dañ koy jàng barkeeloo ko jàng ko nettali ko mu jeex nit ki day mel ni kon day misaaliyaat rek yoo xam ne dañ koy wax waaye mu ne su ko jëfandikoo ah kay bu ngeen xoolee fu mel ni defe naa ne dëkk bi ñuy wax Indonésie wala bi ci des président ba fa ne ab sëriñ la sëriñ la comme sëriñ si ab suufi la itam mais dafa taalif lu bari téere yi dul jeex lu bind docteur Mahathir lañ koy wax dafa bind ci téere loo xam ne kenn xamul nu mu toll ci wàllu salaatu ala bii ci wàllu tasawuf ci wàllu lépp mais gis nga moom ci ay téereem la réew ma sukkandiku ba développement ba egg foo xam ne tey ji dafa jaaxal waa réew mi dafa jaaxal sax tubaab bi Indonésie la wala beneen dëkk bi ci des ah Malaisie docteur Mahathir nga xamante ne mooy président bi ab sëriñ ci ay téeréem lañ sukkandiku ci économie réew ma ba réew ma tey jii Malaisie nekk ci réew yi nga xam ne dañ leen di joxañ ci àdduna si ci wàllu gune te ci diine ak ci xam-xamu xam-xamam ci la ko jaarale waaw ku leen wax ne lii sëñ bi doon jàngale moom àdduna bokku ci luñ mën a yore am réew bokku ci lépp a ngi ci xanaa danoo amagut ñoo xam ne seen niveau ak seen xam-xam egg na ci mën nu ko génneel ban teg ci suñu bët waaye am na de kon loolu moo tax léeg-léeg ñu dajale ay boroom xam-xam yoo xam ne duñ bokk ay taxasusaat kenn ku ne am loo mën a génn teg ci ñu mën koo gis loolu lañ ci jublu ndax euh, jàngat euh, mbindum ki ku mel ni sëriñ beeg ñëwam fi mu toll benn waaye bu mu mel ni man rek mënut a xëy rek di ko wax ci nit ñi ne lii ma ci wax rek moo walaabal leneen walaabal loolu moom loolu du noonu kon ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm euh, nii lañ ko bëggee woon. yal na nu yàlla dimbale ba nu eggale koor gi ak jàmm eggale ko ci nii ñu ko tàmbalee woon sunu borom defal na ci ngërëmam ñoo am ci ngërëmal yàlla yàlla nangul nu ci suñuy koor nangul nu ci suñu lépp yàlla jëlee fi nag balaa bi ñoo ngi ñaan yàlla yàlla jëlee fi nag balaa bi ba mu set weej te bañ a dellu siwaat te ñu xam ne it balaa bi nu na waaw balaa bi nun dong la fa bi maa kasabat ay diiku nun noo ko fi suñuy bakkaar suñuy njuumteeg suñu ñàkk xam su suñu ñàkk sellal suñu digganteeg suñu borom moo ko fi balaa moom fu ngeen ko gis rek tooña ko fa indi tooñ it nag benn saafara la am mooy jéggulu istaghfiru rabbakum summa tuuba ilay waaw istighfar mën na lépp mën naa defal nit lu ne benn waaye dikk na ci benn nitu yàlla ci lay daanale ne ko waaw man de damaa bëgg xaalis mu ne ko dellu def istixfaar mu dellu si waat ne ko man damaa bëgg wér gi yaram mu ne ko dellu def istixfaar mu ne ko damaa bëgg ak njaboot mu ne ko dellu def istixfaar lu mu ko wax rek mu ne ko damaa bëgg istixfaar waaw boo istixfaar li nga soxla lépp mu ngi ci biir mu ne ko waaw mu ne ko istaxfiru yàllaa ko wax istaxfiru rabbakum summa tuubu ilayhi yursili samaa aleykum midraaran wa yumdidkum bi amwaalin wa baniin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhaaran yooyu yëpp istixfaar ko indi kon istixfaar nañ ko fonk ci lu mel nii nit ñi di ko faral di def kenn ku ne dog ba nga ca man nga di ko faral di ko def te tegtal yi ci yonent bi joxe lu mel ni xadis boobu mu wax ne allahumma inni a'uudu min albarasi wal junuuni wal jusaami wa min sayyi al asqaam loolu yonent bi ko indi sallallahu alayhi wa day dàq balaa fu ñu koy defee wala ñu di ko fi waxee incha allahu balaa du fa am wala maa it joxe nañ ci yeneen yo yu gàtt ñaan yu gàtt yi nga xam ne nit ñi dañ koy gis nii te woyofal ko aouzu bi kalimatillahi tammati min sharri ma xalaq ak bismillahi alladi la yadur benn démb rek am na benn borom xam-xam nee na moom mën na waat ci yàlla képp koo xam ne boo xëyee danga ne bismillahi alladi laa yadurru maa ismihi shay'un fi l ardi wala fi sama moom nag foofa la yem tegu ci wa huwa samiul alim fi nee na moom mën wóor ko ne képp koo xam ne boo xëyee bala ngaa génn sa kër def ko ñetti yoon bala nga bu ngoonee noonu nee na balaa bi yow du la dal mais moom loolu wóor na ko ne ko nit ñi nag dafa yomb ba nga xam ne moom daanaka dañ koy romb kon nan fonk ñaan yi te fonk ñaani gaa yu baax yi liñ ciy wax ci ay tegtal ñu di ko def ni ñuy defee tegtali yi yi tegtal yi gaa yu baax yi joxe moo gën a gaaw sax kon mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar ñu wattandiku bu baax nag tegtal yi joxe ñu di ko jëfandikoo te bañ koo doyadal raxasu meeg masque yeeg Euh, jaxasoo bi ndax sëriñ bi sëñ Cheikh Mouhamadou Mountakha lépp lu mu digle bañ gis mu ni ko def waay waay wax dëgg yàlla bu fekkee am nañ benn ixtiraam bu ñu ko jox loola war nañ ko jox ahamiya nag waaye sëñ bi sëñ bi yu ci baree bari nag ak waru da cee nekk rek te itam nag maa ngi lay topp waaye duma ma la roy loolu moom du amul loolu moom wax dëgg yàlla neexut a kon ñu ngi leen di sant leen gërëm di sant ñëpp asalaamaaleykum wa